agressé agressé agressé agressé ba fu mu nekk nii sénégalais ci seen bopp ñooñu ñoo mënatul seetaan injustice bi te dafa dépassé Pastef li nga gis dafa dépassé Pastef parce que sénégalais yi dañu toog di nelaw ñu di leen roccil seen droit yi ak seen liberté yi di faagaagal démocratie dinañu egg si foo xamante ne on se réveillera on se rendra compte que l'Union ñu une petite liberté démocratique perte par la volonté d'un homme qu'on a mis ici mais moi, en 2011 ñi faatu dañu faatu pour une cause qu'on a trahi aujourd'hui mais il y a encore beaucoup d'autres Sénégalais qui sont encore prêts à mourir tenant laide de mes Sénégal di amul situation xam nit que c'est le moment d'abdiquer et de laisser ce pays là à l'abandon entre les mains de vieillards grabataires et de d'apprentis despotes vous pensez que une situation ci dossier bi aujourd'hui mobiliser les les les les Sénégalais parce que j'entends beaucoup de gens dire malgré ces explications nous la doon wut ci salon ba que nga ne alerté nañ leen alerté nañ continuer dem ci salon vous pensez qu'aujourd'hui aujourd'hui yéen mën mobiliser l'opinion après la situation bi est là parce que l'opinion. c'est pas l'opinion. c'est qui. c'est des jeunes qui se réclament de Ousmane Sonko c'est des jeunes aujourd'hui qui étaient prêts à donner leur vie. d'accord pour Ousmane Sonko. c'est pas les Sénégalais. ay lan Gabonais la c'est des Sénégalais. ah la nuance est importante c'est pas les Sénégalais. voilà léegi nag kon am fi cause boo xamante ne mobiliser les Sénégalais parce que su ma la déggee nii ak seen nuance français yi suis les Sénégalais les Sénégalais. ce sont les 14, 16 euh, euh, euh, millions de, Sénégalais. Ce sont des Sénégalais. Nous sommes présentés au domicile de Ousmane Ousmane pour protester. sachant que mobiliser les Sénégalais, 15, 16 millions de Sénégalais, nous nous on mobiliser les 16 millions de Sénégalais. Parce que ça c'est fait que je faire ko mënuñu ko mobiliser mu génn ci mbir mi day xeex te ci 16 millions yooyu la bokk te bari naa ci bari naa ay morom yoo xam ne seen waajur duñu génn di xeex kilifa diine yi nekk ci seen kii yore seen course dañu ñaanal mu am seen métit ñooñu duñu génn ci biti di xeex te 16 millions de sénégalais lañ bokk kon boobu bi nga xamee ne la nuance important importante et que les 16 millions de sénégalais mooy sénégalais yépp kenn bañ a des boo ma ko dee laaj yabaate weesuwu ko léegi nag boo nangoo ne de mais yabaate mooy nga ne nit ndax seen cause mën na mobiliser les Sénégalais définir les Sénégalais c'est tous les Sénégalais y compris même Macky Sall mais mais mais mais mais mais mais Macky euh, laisse-moi baille moi, baille ma moi vas-y. les les les les Sénégalais c'est les 16 millions de Sénégalais Wa après, ci lañ bu faites les les Sénégalais ils me ma des question moi tous les Sénégalais sans exception ndax ñun nous il y ma gën a xam ne mënuñu mobiliser waa APR pour ñu xeex ak Macky Sall mënuñu mobiliser Macky Sall pour mu xeex ak boppam kon su ma taxawee sa plateau bi ñu jàkkaarloog Sénégal yi nga mel ndax mobiliser les 16 millions de Sénégalais pour cette cause je dis yabaate la. deuxième chose mooy bu fekkee ne nag ñi nga gis tey c'est pas les Sénégalais parce que dans ton entendement et ta nuance les Sénégalais c'est les 16 millions mais c'est des Sénégalais les ces Sénégalais là pour ñu. ces des Sénégalais là entre guillemets pour nous ñi fa nekkoon prêts à donner leur vie ñun xamuñu nuñ toll te xamuñu ñan ñoo leen nar a rejoindre ëllëg donc ñun lu ñu war mooy ay leader lañ on donne la posture de combat boo xamante ni ci lañ nekk te nag lépp loo xamante ni ñun mos nañ ko def may mun a dañ ci jiitu bu dee vape dañuy dem béy ji bu dee joxo deret dañ ciy dañuy dem joxe ji deret bu heure faatu tamit jotee tamit ñun ñoo cay njëkk a faatu après les sénégalais ñun xam lu ñu war def lu ñu war comme mouvement Yacine Fall lu mu tudd def lu la war ñeneen ñi li leen war est que dañ ko def wala duñ ko def loolu ñoom la ndax ñun jóguñu rek nekk ci engagement politique am na ñu ci jiitu doon xeex xale ay yoon ñu nekk ci clandestinité am ñu ñu rajee Blondin Diop buñ koy rey judooguma peut-être. mais nous, nous nous, xalal nous droit nous, mu am dañu yoon bu ne am nañ ngor ci posture est-ce que ban lay xam xawuma mais man am yaakaar gis ak détermination bu am dinañ parce que savent que pas Pastef pas Ousmane Sonko c'est la démocratie sénégalaise qui est en jeu. alors je t'invite à un minimum d'élégance un <laughs> ah, minimum d'élégance oui un ah, minimum d'élégance mais xam nga lu tax xaaral xaaral xaaral xaaral avec moi wax la xam on est en échange ah. moi je cherche à comprendre euh, je pense que nit mosul toog ci plateau bi dima naan yabaate la c'est-à-dire moi je te pose des questions c'est-à-dire nous mu mettez métti apprenez à répondre aux questions li ma li ma lay laaj neexul de. xam naa ko xam ne li ma lay laaj neexul ni la koy lajé nekhul mais je suis dans mon rôle je pense que. Euh, ay tok naan yabaté la. man je suis une personne bien éduquée du ma ko yabaate non dama bëgg rek lool dama bëgg rek dama bëgg ñu éviter parce que ñëw nga fi une première fois tu as utilisé un mot man suma la dalalé damay damay damay damay tolérant xam ma personne n'est pas importante mais je pense qu'à un moment donné aussi il faut qu'on arrête ça ah, voilà xam nga lan moo dal voilà il faut non non il faut il faut arrêter ça c'est-à-dire man su ma la dalaree li ngay teg ci sama kaw euh, sama yoon nekk c'est l'essentiel que man ma ma ma opte ma ma ma ma jette jot sama objectif mais aussi je pense que il faut un minimum d'élégance un minimum d'élégance mooy man mënuma la dalal nekk une dame ma toog nga naan man da nga yabaate ah Maïmouna euh, non, mais, il faut qu'on se dise les vérités, Je pense que ça devient une habitude. Je pense qu'on peut échanger sans pour autant Quand je dis les, les 16 millions de Sénégalais, en 2012, les Sénégalais se sont mobilisés. Les Sénégalais. En 2012, les Sénégalais se sont mobilisés. Euh, les, les, les médias, les Sénégalais. Moi, quand je dis des Sénégalais, ce sont des gens qui sont vos militants, qui sont allés au domicile de Ousmane Sonko. sama problème lan la. merci beaucoup mënuloo encaisser une once <laughs> amul loo mën a encaisser. man mënuma encaisser wallaay côté boobu ci ay fragilité légendaire. man li may daj ci yéen. non dajoo dara justement parce que li ngay daj doon du dara c'est que ni nga koy ressentir.